you booy xam nga lu tax ma woo ñi tey sa néeg. parce que damaa xëy tey dégg wax ju ma jaaxal. déedéet waay. ci sama diggante ak sama jabar ci néeg bi lañ nekk tey mu dimal limal naan ma sama jabar yi fi nekkoon dama leen doon jox or dama leen doon jox trois cent mille di lim di presque valeur bu deux cent euh, deux million que ni moom laa leen doon jox euh, suukaru koor. mais man ba loolu su ma ko doon joxe su ko ko réew doo ma woo yedd ma. waaw yedd duma sax mën na la cee fekk waxuma la ak yedd. ñu wax ka ni man maa ko def ma wax mu insister ka ni dëgg la. wala wax jooju fan ko a jëlee sax yow wax jooju foo ko jëlee. te lenn benn affaire laa lay wax wax jooju ku ma tegal kaam yi ma waat ne ma maam yi moo ko wax. déet si ah. déet saa waay déedéet adduna noonu. booy yaa ngi kii xam naa ko baax xam nga jikkoom xam nga lu mu capable ak lu mu capable. wante nag changement am na nag yoo xam nga ci dara. maman ba woon ak maman bi vraiment changement bu rëy am na. bu ne maa moo rey nit ma ne du dëgg bu ne moo sàcc moo ne du dëgg mais moo fen ma ne dëgg la. xoolal nga wax nii nag bëgguwee mu ko noonu de parce que gis nga maman bi mu ñëwee ci kër gi ba léegi deful waxul fenalul kenn hmm. maman day yeewu léegi di nemmeeku sax nit ñi loo xamante ni daawuñu ko woon am ci maman ah. kon tay ni du sa jabar bu déggee dara rek wax la ko après ngi mama la loolu loolu yaa ngi tooñ gis nga ñom ñi seen marché ba ñuy dem di lu ne lañ fay waxante mom mi mo wara wax limu wax kan kan moko wax ñu mëna xam mais man mom tay mom ku dé ak sa bamél man sa ñaa sé del ki parce que gis na ci mom changement bu reuy ki mom waxul ko borom pax boy jikko borom pax te ki du changer musóoru saytane bi du changer c'est ñu ko kanam gurum go nah, iya. salam alaikum kendu ko daf sa ci ki hmm? wa alaikum salam nayen de mm-hmm. naka ya, yem ngay dom day bal mo ñu afrika tek da sori nayen def madam sall yene ngi tok yene ci jam naka yem ngay ingu yaay ni dom day namuna la alhamdulillah, uy sa xarit nak wala koor ge la japp degluma rek da melni ku ñu gomé rek xamoo lu ñuy sol naaj bu tàng xamoo lu ñuy sol bu ñuy soulager xamoo bu nit ñi di waxtaan lu ñu war a sol. yow xanaa bala ngaa xuloo nga fay mu nuyoo déglu ma rek déglu ma rek. keroog sol nga lu ñuul ñëw fii wax daaj di daaj di daal di demaat. tay nag nga def sa li nga xamantene ne sa musóor montagne bobu non nek estate bi bi Ablaye Wade defar rek ñu far folli ko. Eh, may ma sama jamm may ma sama jàmm non non non eh mama, ni do am sa gan ba bëgg non nit du am sa gan non non non gan kenn du ko def ni ki sa gan la bu ñu ci kër gi yow lay seet ba pare nga koy def ko bi tam na ko bu bu bu waxee dara bu ñu wax nga jema a fi mu do fee ruube dama na da nga changer ba pare ngay dem di doxalee ni dégg ah yow tamit ken du dem sa fen yi nga wara bayyi bàyyi ah. kii moom du fenkat sama xarit lan nag loolu moom du jikkoom. gis nga sànq ba tey yéen a wax ma a tekk di leen déglu jox leen nopp bu baax bi lu jom wax mi tey laay ma maam mi musta wax musta dot musta nettali dara tey maa jël sama peñe di dem marché sama noppam ma ko may kenn nettali mu ko. la ci lu baax mën nañ laa gërëm mën nañ laa tagg mën nañ la bëgg mais pas ci ay puukare ay oor ay yooyu naka su dul noonu. man daa bokk ci sëy bi nag ah, ci sëy bi la bokk njëkk yi rek. leen de xamal naa la ko nag mm. bu amul sens dëgg bu dee sa jëkkër nga yaakaar dala ko bëgg defal li gën a yomb ñaari kilo sukk lay jënd teg ko ci mbuus bu ñuul bul ko nangu ah damaa bëgg li ma la wax lépp nga jënd ko teg ko boo koy yóbbu nga wom ma dar la maag sama nit soo ko defee man dinaa mere nag. ah waaw baax na après ma yóbbu suukar naa la woo waaye de toute façon puukare moom. merci rek moom amul foofu. koor rek lañ leen da xamal naa gis nga li ma la wax nii soo ko deful. dala leer ne kon yow sëy bi daal doo fi dara ndax ñi ñu fi nekkoon. ah dañ daan def de waaye ni ma la gisee nii nga def nii ko ñooy def da lay yomb puukare mi nee la nga teg ko moom mi toog na jodd joddaaral ak sa jéeg bii toog ne dar kase ñoo toog lépp lu mu xam moom mi moo ko ko ba pare nga bëggoo jiñ kii tamit xam nga lii laay waxati waaw mi ngi noonu nag bul di gaaw moo ngi ni toog bul di gaaw ah jéeg yeeg yëpp moo wax sama nopp ma may jéeg buy sëy daal warta am xarit ki lay indil ki lay yóbbul moo lay indil waa xesam yi mu mel ni mbikke trois mois. waaye yow bi bi ngay bëggante kii man dama ko fekk. yow lan moo la wax sama vie privée ba ngay ñëw ci kii di. loolu la nga war a loolu laa lay laaj nag bi ngay bëggante kii man dama ko fekkee. vraiment. kii ba nga ko yóbbu première cadeau ne 500000 nga ko may léegi naa 200000 nga ko may fan laa ko yëgee. waaw. ah te saa waay 200 yi nga joxe woon. lu ma xam ci kër gi maman moo ma ko wax. nga ne ma. nee na 200000 ya nga takkee kii yaayu kii moo la ko lebal di la fayoo fayoo ko ah. ma yow xamul tax nga seytaane rek. kon yow maman li nga. ak sa ñaari rasta yi ngay mel takk ñaar lañ la may. maman kay ndekete sax yow. jéeg ji yëpp nag moo leen tas seen sëy. xamalu ma la dara moo ko wax wàññi doo ko lu yokk rek. loolu loolu yi nga xam ne moom ba tey parce que bu ci naré am nak mo wax la mo wax la dëgg nag ma lii moom ko wax lii mom ku weesoo kii parce buñ koy waxtaanee man man yalla ma yalla jéggal sax sama responsable di ma jël di netali di wax sax nan waxo man yalla ma ci yalla jéggal yow ñu waxal na la ndax nee na moom soo joxe sukkaru koor yow pare yére bi nga sol ni nii nuróolee ko moom na nga simi nee da dem xew ñi sédd ko ko mu dag mu daggal la ci yére bi moom mo la ko may mama ku la ñaw du man bu sax naka jekk nag ma xam ne <laughs> nii wax munoo dara yàlla def la nga daggul sa mañ mu ndaw bi xam naa bii la dagg rek wax ji buy ñëw sax day bar bu sa mën nga fen nag waa léegi jugal dem yow lii yëpp nga ma jiñ ci wax waa jugal dem rek sa lex yi mel ni lu ñu consolé rek ah bu so nag lan la xaste yi nag ngay wàññi yow yaa ngi ni boo defee lu ne wéng riñ dëgg wax nga nga xam ne daaw ba mi ngi fi waaw ma kenn ngay dunguru ka ah. maa ngi ni location léegi dama koy fay ba mu mat waaw man maa te boolewuma ci benn dinaa la woo dégg nga maman yow yow jëlal woo wax la yow it. waa léegi déglul dama lay wax. sérieusement nag sama rakk nga. damay dégg dóoru ma la waxuma wax ji yaa ko wax waaw wala déet. ah tàngaare dinaa yaa rek waaw wala déet yaa ko wax waa wala déet. laaj lii laa la doon wax. maman nag déedéet maman nag wax ji nag dafay leer ma nag lii yaa ko wax wala waxoo ko. xanaa nag maman boo dofee ba ay jinne jàpp la. Hmm. moom ñamewoo ko wax ci kër maman li nga yàq ci ay sëy maman yaa ngi koy compter yow maa lii jàmm la ci yow. maman yaa wax kii ñëw toogagul sax nga bëgg a yàq. yaa ko wax nga bëgg yàqal wax yaa wax. yaa wax. non hmm, wax ab wax yaa wax xoolal teel sa kotooti yow moom li may lijjanti man ak yow koy lijjanti sa kere paas dina lijjanti njàpp eh xoolal bul ma bul ma séeri de eh bàyyi ma sa xef yi di mel ni.